également di gërëm suñu papa alaaji Cerno Sabasa marabi di grand chef religieux dëkk ca wër a soogi ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram alaaji Cerno Bokar Alpha Ba ca war a nañ ko Serigne Habib Gaye mu xadamu Serigne Mansour Sy borom daara yal na yàlla defal la jàmm moom Serigne Habib Gaye di ko nuyu tamit alaaji Cerno Nourou ci Sacré Cœur manto bi alaaji Cerno Abdourahmane Bari ca Bogal mi nga xam ne mu ngi ñetti fanam yooyu nga xam ne Ndiaye Waly Kamil dëkk ci HLM Angle Mousse ak soxnam Adja Mam Bousso Cissé di ziar suñu papa suñu sëriñ Alaaji euh, euh, Basirou Baara Mbacke Sëriñ Bassirou Bara Mbacké dëkk ca euh, HLM Géejawaay ak mboolem taalim boo xam ne nag yaa ngi euh, wékku ci Sëriñ Bassirou Bara Mbacké ca Géejawaay Go Fall mu ngi koy ziar ak Abdou ñoom ñëpp nag ñu ngi am ak sëriñ ca Tivaouane di ziar bu baax sëriñ Maodo Sy bu ñu am ci Alaaji Seydou Sow sopp Sëriñ Fallou dëkk ca Passy waaye ca zone bee yeewoo ak taalibe boobu nga xam ne mooy Adja Maam Faye ñu koy ziaral tamit di ko masawu ci ndogal bi nga xam ne moo dal dal ci kawam ci ko nga xam ne nag euh, mbokkam la te wàññeeku ñuy nuyu bu baax euh, Serigne ma Sougou Waadaan dëkk ca Kébémer ak mboolem dëkk boo xam ne nag yaa ngi foofu ca Waadaan ak Serigne Cheikh Omar Tall te Sokone sama xarit ziar nañ ko Abdou Karim Mangane ak ñaari soxnam Sadio ak Fatima di am mbégte moo dëkk ca Fass Mbao di nit ku yàlla baaxal nuyu nañ ko ziar ko di ziar bu baax ki xam ne mooy cardinal Théodore Adrien Sarr sama xarit di am mbégte contentement ci Serigne Mansour Sarr dëkk ca Tivaouane di yeewoo ca Budi yàlla na ko yàlla defal jàmm maître Fatima Fall bi nga xam ne nag waajuram bu jigéen moo wàññeeku ñu ko koy jaale ak mboolem koo xam ne yaa ngi fii ci groupe Futur Média rawatina nag ca euh, émission Kouthia Show ñu ngi koy jaale waajuram bu jigéen boobu génn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana saraxam yàgg ci loxo na maître ko yàlla may xol bi ko a remplacer ak ko ñaanal fan bu gudd moom mi nga xam ne nag mooy maître Fatima Fall di ñaanal yaayam jooju yàlla ko kii ni ñuy def nag duñu def lenn lu rek dem seeti ki nga xam ne mooy président Mauritanie am na ay kàddu yu mu yëkkati ndax fu mu ne nii nag xam ngeen ne Yaya Jammeh nee na bés bu tegoon tànkam Sénégal élection premier tour day daan ki nga xam ne mooy Macky Sall moom président Mauritanie wax jooju am na lu mu ci jàngat ndax day araftu war a day dëggal loolu war na mën a nekk ci président bàyyi réewam dem présenté wu candidat ci beneen dëkk nan koy jàngatee moom Abdel Aziz ñu dem seeti ko président bu Mauritanie mi nga xam ne nag wax dëgg yàlla maa ngi koy nuyu xam naa ne moom <laughs> wax dëgg yàlla président bu Mauritanie moom ku jege Sénégal la ñu seeti ko moom ca dëkk Maccom biir Nouadhibou ak Nouakchott ak ñi nga xam ne ñooy géwélu naar yi nga xam ñu nekk ca Nouakchott ñu seeti ko. yaa di nekk di nekk yaa di nekk di nekk Tim Zaid asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu أجعتني مرغبلة فلا عطل نورا عطونا جعل سعلنا فلا عطل الغلو عبد الرسول أنا رجع عطرنا أنا من على فلاحة تعالى خيو زرلا على دقنا علف دقنا عرب دقنا نار دقنا فرنسي Je parle français tuuti tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest il faut faire attention parce que pour faire Afrique unie il faut que tous les présidents unis ah si Yaya Jammeh président de Gambie élection Sénégal s'il le Sénégal et gagne Gambie Sénégal et Gambie sera un pays. moi aussi si je suis candidat à et je gagne Yaya je fais Mauritanie et Gambie un seul Yaya Jammeh, ce qu'il a dit, il faut jusqu'à présent, il faut comprendre. Il faut que nous, les présidents de l'Afrique, on fait élection pour voir qui est le plus populaire de son pays. Et s'il gagne le pays, il prend le pays là, c'est Bouliba. Alassane est candidat pour récupérer Mali, et il gagne Mali, Côte d'Ivoire et Mali sera un seul pays. waaye nag ma wax ko ci olof dama ne Yaya Jammeh dafa ne bu Sénégal amoon élection Macky Sall premier tour la ko gagné waaw d'accord bu ko gañe Sénégal day fekk Gambie Gambie ñoo nekk ci biir war wara Sénégal dem dugg ci Gambie mu nekk benn dëkk waaye boobaa man président Mauritanie bu fekkee ne man dama bëgg euh, Mali nekk fa candidat su ma gagné Mali Mali dafay dugg ci biir Mauritanie mu nekk benn dëkk président Côte d'Ivoire bu fekkee ne dëkk bi nga xam ne mooy Cap-Vert dafa am ñu ko la mu nekk candidat su ko gagné mu boole Cap-Vert ak Côte d'Ivoire mu nekk benn dëkk bu ñu jongantee suñu biir ki nga xam ne moo gën a baax ëppale bayre ëpp yaramande mu nekk président Afrique de l'Ouest su ko defee tubaab bi xam ne ñu ne ñëpp mun na nekk benn say ñu ànd def ndey defu bay Sénégal bu ko Gambie gagné Yaya Jammeh bu gagné Gambie Sénégal nekk euh, dootu nekk dëkk euh, gouverneur Macky Sall gouverneur lay doon Sénégal région lay nekk gouverneur bu fekkee ne ah Yaya Jammeh def ma gagné fii ci ne nekk gouverneur saf xoram. fu ma juux ñëpp tàccu Abdoul Aziz stade damay ñëw mu mel ne que Messi moo ñëw ci terrain su ma duggee stade damay mel ne mbaru lamb bo xam ne dafa ñëw pour bàkku ñëppay yàqay li yàqay li ñëppay yàway lii ma ne nag li Yaya Jammeh wax lu jar a bàyyi xel la kenn ku nekk na nga góorgóorlu sa dëkk ñu bëgg laa sinon beneen président dana ko foqati waaye boobu sax moo tane ndax foqati nguur ci ay élection moo gën foqati ko ci leneen moo tax wax dëgg yàlla yéen waa Mauritanie maa ngi leen di sant di leen gërëm di xam ne nag wax dëgg yàlla soo amee président bu mel ni man taaru macha allah baax macha allah yaru macha allah xam olof xam tubaab xam arab di lekk naar ولا كالزولا كالحرر شننا ألف لا حتر كالولا كالزولا كالبيدا قطر كالفلا حرولا ما أنا كالزولا حتى لا كالولا كشنا كالنا الأولى muuraqaltal kaala quula an ashadara siadara lwuula maalakal wuulukul zuura alqal ajani mun ana fala ala ma kisal wala kana ya jama kana ala san watara wala kal wuura kal zira kal fala ma ne de wax dëgg yàlla bés bu yàlla defoon Sénégal ñu sopp ma lool ma nekk candidat nekk président bu Sénégal ak Mortani ci la yàpp xar xam nga ñaata la ko jaay ci la yàpp ci la yàpp bay juróom fukk ci la gëleem ñaar fukk xam ngeen na senegal jën rek nañu bëgg te Mauritanie moo ëpp jën ci Afrique de l'Ouest saamu yaboy saamu yoo saamu yaboy du weesu ñaar fukki dërëm ak yaboy dama ne ci la coof boo xam ne toll na bopp yay ay jaame bi maa ngi koy jaayee du ma amul wax xam nga ñaata laa ko jaay lu mu gën a seer seer seer du passé